donner du recevoir yéen ñu ñuy euh, recevoir chez vous partager leen aimer leen liker donc euh, et également surtout commenter leen tout en posant des questions à l'invité du jour l'invité du jour xam ngeen ko jeudi bu jot ñu ànd ak moom sa waxtu wi euh, Serigne Saliou Guèye wuyoo Serigne Saliou ma di la nuyu baax baax. Jibi maa ngi lay fay maa ngi nuyu waa kër gi technicien yi borom kër gi madame Ndiaye. maa ngi nuyu aussi euh, tous les tel euh, les internautes yi ñuy suivre à travers la plateforme de Sénégal 7. c'est important jërëjëf en tout cas cant ak ngërëm ñeel na la euh, Serigne Saliou Gueye Serigne Saliou. Mm-hmm. waxtaan bi de tey moom moo bàyyi <laughs> euh, chaque jour on est naturel mais dina gën a naturel. waaw euh, Ousmane Sonko ak Diomaye dañu démb la ñu waxoon ne ci la ñuy génn. Ah. bon loolu je crois que ça venait de de la présidence. Finalement, ils ont dit qu'il y un problème pour euh, le respect du délai de la promulgation donc date bi ñu waxaat ne tey la ñuy génn. kon génnuñu. ba léegi génnuñu au moment où je en tout cas bi may ñëw fii daal. génn bu léegi nag nit ñi ñi ngi xaar seen génn. parce que actuellement nii puisque li leen fa téye woon c' était le le problème de l' amnistie la loi étant votée bientôt je crois ça devait être normalement promulguée aujourd'hui donc ceci étant donc ñoom defatuñ fa dara il est vrai que mënoon nañoo génn nag sans la loi d'amnistie parce que y a beaucoup yoo xamante nii kii ñu ñu tuumaaloon des faits similaires yi ñu tuumaal sonk ak Diomaye te pourtant génn nañ sans attendre la loi d'amnistie donc peut nag c'est pour vraiment mettre les forme et puis wax aussi loi bi li muy jariñ pour wane ne loi bi jariñ na Diomaye et Sonko en même temps donc xam naa loolu mu leen fi téye kon c'est politique ah oui mais c'est purement emprisonnement Diomaye emprisonnement Sonko emprisonnement ñi ñuy wax les détenus politiques comme son nom l'indique tout ceci c'était des motivations yëpp c'était des motivations politiques doon leneen si eh, li ko motivé woon yëpp c'était des euh, c'était c'était la politique bon gis affaire euh, ci impasse la la dugg donc euh, le pouvoir xam na ne amalatul njëriñ ñu leen di téye en prison parce que je crois ils sont beaucoup plus dangereux sax en prison que étant dehors donc il faut naturellement les libérer. Euh, alors pourquoi joxe info boo xamante ne nii au fond sur. ah oui mais tu sais xam aussi toujours ça peut participer de euh, la manipulation aussi de l'opinion parce que xam nga jamono ji ñu toll moom manipulation yi ji bi bëri na trop trop trop trop trop mm. bañ na trop. donc euh, dafa am ñoo xamante nii dañ ne dañu jege président de la république au point que nit ñi jàpp nañ ne information bu ñuy génne peut-être ci kilifa gu mag gi dañ ko jëlee. Mhm. donc ñoom bu ñu demee ba génnee benn information ba pare xëy rétracté wu y a problème. Mhm. est-ce que c'est par manipulation est-ce que aussi c'est par erreur tout simplement bon façon dinañ ci xam dara par la suite. Mhm. mais loo ci mën a dégg daal mooy jamono yi ñu toll nii. fausse information yi bëri na. Mhm. désinformation yi bëri na. Mhm. intoxication bi bëri na infos yi bëri na mais loolu lépp c'est pour manipuler tout simplement l'opinion. Mhm. waaw sur surtout euh, li ñuy traversé nii ce problème de li ñuy wax report élection encore et cetera tout ça bon yëpp c'est de la manipulation rek ji mais mais mais kon le fait la coalition Diomaye président reste toujours à Dakar donc c'est c'est également une stratégie là pour atteindre ses leaders. waaw ouais, mais loolu aussi xam nga. Euh, coalition Diomaye bon pour man jàpp naa ne sax loolu erreur la le fait de vouloir rester ici. Mhm. il est vrai que dans chaque localité ñoom s'ils sont bien organisés localité bu nekk war nañu am un comité électoral boo xamante ni ñoom liggéey bi ñu fa war a def nañ ko fa def parce que en réalité euh, caravanes c'est simplement pour de l'animation mais c'est pas pour véiculer un message euh, en tout cas programmatique parce que programme bi déjà ñoom am na fu ñu ko décliner yàgg nañ ci waxtaan et puis am nañ aussi ay nit ñoo xamante ne nii toggal nañ leen ci dëkk yi pour mën a gën a waxtaan nag askan ba nga xam ne ñoo nekk foofu ci seen programme donc ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk fii yore peut-être animation bi war a dajale yéen nit ñi ak yooyu je crois que le fait de vouloir rester ici ba ñoom Diomaye génn loolu aussi njuumte la parce que ñoom Diomaye mën nañ bañ a génn aussi on ne sait jamais parce que avec le pouvoir là bu la neexee ñoom ñu connaît seen logique voilà donc je crois que le fait de vouloir rester ici ne dañuy xaar mënoo xaar koo xam ne xamagoo kañ lay génn mm-hmm. même su fekkente ne jot nga à travers un canal officieux que ne dina gën mais tant que loolu teguloo sa bët war la mën a tere ngay dérouler say activités bon les gens actuellement son dans les euh, en tout cas les son ils sont dans les dans les régions bon il est que ñoom mën naa ne ay leaders lañ mais bon en l'absence bien sûr du du du grand des mhm. mais ñoom dañu war a toog toogaayu leader. Mhm. li ñu war a def mooy wàcc sur le terrain ba ñi bu ñu génnee nag ñoom fekk leen sur le terrain parce que sur est sûr certain que ñoom dem ci terrain bi wàcc génn rek moo lañ tere dem su ñuy génn ils son sur le terrain. Pas de temps de répit pour nos blocs, etc. Non, parce que l'heure n'est pas du tout au repos. L'heure, c'est à la sensibilisation sur les programmes. Mm-hmm. donc euh, pour man jàpp naa ne coalition Diomaye su fekkee ne loolu moo leen téye Dakar pour man loolu njumte la il faut qu'ils déroulent leur programme ils ont un programme bien défini donc nañ topp seen programme ba keroog mm, seen leader yi génn. campagne bi mënuñu jàpp ne campagne bu drôle la un candidat en prison euh, la mouvance présidentielle son candidat moom te ñu naan nii ak nii. et, également ay recours par ci par la waaw mais xam nga loolu lépp ça participe de euh, li nga xamante ne moo xewoon avant le vingt cinq février bi passé mooy report bi nga xamante ne exemple moo ko décidé woon unilatéralement bon euh, en toute illégalité bien sûr donc loolu mooy indi tey situation bi nga xam moom lañ nekk parce que aussi calcule yi dafa bëri. Mm-hmm. calcul yi dafa bari dans la mesure où. am na ñoo xam ne bëgg nañ ñu bokk ci élection yi. am na ñoo xam ne aussi bëggatuñ ñu bokk ci élection yi. Mhm. ki ñu bëgg mu bokk ci élection yi mooy Karim ki nga xamante ne ñoom jàppoon nañ ne mënatul nekk sax seen seen euh, seen candidat mooy euh, Amadou Ba l'actuel candidat de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. parce que ce qui est mooy yow nga taxaw pendant mois neuf jours nga def ce choix sur un candidat génn taxaw ne kii mooy sunu candidat amul plan B amul dara ñu dem ba ca digg ba. am ñu la jigéen ñu taxaw di wax ni kii du sunu candidat c'est un problème moo kilifa aussi kilifa la mën nekk il faut c'est-à-dire boo xasee ba génnee sa kàddu da nga war a être l'esclave de ta parole même su fekkee ne njuumte am na ci par la suite aussi mais yow yaa décidé loolu ba ñu acté ko ba ñu yóbbu ay dossier conseil constitutionnel jàpp ne kii mooy sama candidat kooku mënoo too ci reculer muy erreur muy ñàkk erreur kooku mënoo ci reculer mais bu fekkee ne dañ dem ci biir ñu bëgg a reculer ba pare ne léegi candidat bi dañ ko bëgg a changer au point même de faire des manœuvres pour ñu reporter élection yi mais je me dis que loolu aussi ce n'est pas sain démocratiquement moo ñu indi tey ci situation bi bon gis naa nag Amadou Ba jóge woon na Tiwaawoon ñëw na seet si. seen kilifa waxtaan nañ li ñuy waxtaanee bon nee na. mooy mooy kan def nañ bloc autour de lui. mais c'est mais c'est mais c'est ça l'aberration ji bloc boobu c'était depuis le départ ba ñu lancé ba léegi c'est-à-dire bloc boobu waroon am benn faille waroon am benn fissure moo tax ma ne man par bi dafay enfoncer sax des euh, des des des portes ouvertes mhm. parce que loolu day enfoncer des portes ouvertes yow yaa taxaw nga ne kii mooy sa candidat mhm. amuñu beneen plan mu ñëw ngeen ne c'est comme si vous renouvelez encore votre confiance <laughs> mais y a problème. Mhm. loolu dafay fragiliser même candidat bi mooy candidat bi même su nekkee au sur le terrain mooy wóoluwuñ ko et puis c'est quel type de soutien encore est-ce que soutien ñàkk pexe la est-ce que bon y a de est-ce que est-ce ah non pour man y a parce que sincérité bi c'était dès dès le départ te ce qui est sûr et certain mooy am na ay faucons yoo xam ne nii qui sont autour du président ñooñ moom ay la yow duñu ñu a wàcc ci terrain bi ne dañuy jàppale waa ji. Mm-hmm. man xam ñoo na ñoo ñu toll nii bu ñu waxee nii c'est le principe. mais duñu mës a wàcc sur le terrain dañuy jàppale waaj. te lu déjà moom mu ngi fustigé sax. waaw li xam te ne moom mooy son entretien la fuite yi ci am. parce que ci biir entretien bi yu bëri donc donc wax nañu ko quand il parle de ay ay mbir yu bëri xew na ci réew mi donc je pouvais ba pare di naqarlu yenn ci candidat yu ñu validé yenn ci ñu donc également conseil conseil conseil constitutionnel mi mu jàpp ne dafa outrepasser ses prérogatives donc. waaw mais moom du conseil constitutionnel xanaa tey lañ ko mën wax dañ bàyyi conseil constitutionnel xam nga conseil constitutionnel ñoom dafa am lu ñuy wax loi organique nañu xool li conseil constitutionnel di dogal boobu ba léegi ndax am na ci benn yoon boo xamee ni conseil constitutionnel dafa wàcc yoonam man mënoon naa d'accord nit ñi taxaw ñu ne conseil constitutionnel de lii mu dogal fii du yoon te même conseil constitutionnel ay nit lañ tey bu ñu dogaloon sax moo xam ñu wàcc ci yoon dañ ne dafay imposer wu à tout le monde et les juridictions. Mm-hmm. d'autant que nag sax ñoom li ñuy doxal boobu ba léegi ci yoon kese lañ ko teg waxuñu fi lenn loo xam ne dëppoo la ak yoon président bi sa mandat la deux lay yem mënoo ko weesu président mënoo jël benn act boo xam ni day dem au delà de votre mandat président bi mënoo reporter élection yi ainsi de suite ainsi de suite mais loolu ana loo xam ana excès de pouvoir du conseil constitutionnel quand j'entends les gens dire que oui il nous faut une cour constitutionnelle mais problème c'est-à-dire c'est pas la dénomination qui pose problème parce que bu fekkee da nga fa indi cour constitutionnelle boo xam ne aussi qui a de loi organique rek moo koy organiser te su boobaa loi organique boobu day fekk ne toujours mu dëppoo ak li nga xam ne moom la constitution bi wax. Mm-hmm. ñoom duñ ko mën a wàcc. Mm-hmm. mais nag c'est pas parce que aujourd'hui décision yi ñuy jël yow dafa nekk en ta défaveur. que ngeen bëgg a taxaw quand même diaboliser le conseil constitutionnel à ce point là je crois que une institution comme le conseil constitutionnel il n'appartient pas au garant de la stabilité même des de fragiliser une institution mm-hmm. Mm-hmm. loolu xel mënu ko nangu mm-hmm. ñeneen ñoo waroon toog di wax parce que moom mooy kilifa gi am na loo xam ne ni même tey ñeneen bu ñu ko doon wax mu moom daf leen ko war a tere parce que noonu la ñuy protéger une institution mais président bi il est le premier à tirer sur l'institution loolu du cëram loolu du cëram donc man dama ne nañu bàyyi conseil constitutionnel ci seen rôle bi nga xam ne ci lañ nekk. la nga xamante ne ñoom ñoom ñoo doon bëgg a jalgati yoon. élection taxaw nga ne da nga koy reporter te tegoo ko ci dara da ngay changer constitution bi ñoom ñoo nekkul ci dëgg. il faut savoir dire la vérité ñoom ñoo nekkul ci dëgg. conseil constitutionnel dañ leen tegaat ci yoon. Hmm. conseil constitutionnel bi ñoom dañ leen waroon félicité au lieu ñu leen di ñu leen di xarab loolu mooy dëgg. mais nañ bàyyi conseil constitutionnel ils ils sont dans leur rôle tout simplement amul leneen lu fi def loo xam ne dëppoowul ak leen seen loi organique may amul. nañu leen bàyyi jëli beneen bi mooy a quoi joue le le parti démocratique sénégalais quand il demande ñu ay annuler élection gi kenn xamul. ak lu dugal ci euh, cour suprême. xam nga démocratique sénégalais man j'ai l'impression qu'ils sont dans la comédie rek xam nga li ñuy def nii si baru d'honneur la rek jibi hmm. démocratique sénégalais quand comédie ah la comédie ñoom liñ fi doon wax bu njëkk. c'était les partisans d'abord du report ñoom manipuler nañ manœuvrer nañ ne dañuy reporter élection yi ñu def ko conseil constitutionnel ñëw gàntal loolu ñoom ñoo fi wax ay corruption des juges te ñoom xam nga ne li ñuy wax dara amu ci corruption des juges li ñuy wax dara amu ci dégg naa sax am na ndeysaan ay audio yu ñu jël xaw ma di ko jaarale dans les réseaux là. Hmm. bon tu sais ça fait pchit parce que les gens ne croient même pas à ces histoires là xam nga les gens ne croient même pas à ci hmm. bi il faut qu'on soit sérieux dans ce xam nga di bëgg a réew mi loolu daf ci bopp moo jaarul le PDS a gouverné ce pays pendant douze ans. Hmm. donc dafa am loo xam ne tey ñoom du seen cër ñoom ñu jox leen pouvoir bi bañ ñàkk pouvoir bi tey ñu bëgg a déstabiliser pouvoir bi loolu du dëgg du yoon. li nga xam ne moom lañ nekkee lañu war a bàyyi que vaille que vaille dinañ yàq élection yi parce que simplement seen leader bokku ci mais ils n'ont qu'à s'en prendre à leur leader xam nga ñoom ñi mu ñoo toog wax Karim Wade dëgg alors que Karim Wade est dans le faux Karim ñoom li ñuy bëgg a taxaw fii di wax yëpp dama ne bu ñu ko demee teg ko ci yoon teg ko ci les articles du code électoral ñoom xam nañ ne Karim ci boppam il produit du faux moo tax ñoom ñu jàpp ko Karim tey bu wàccoon ci réew mi. on devait normalement appliquer des dispositions du code pénal et aussi du code électoral jàpp ko comme ni ñu jàppoon Rose Wardini loolu mooy loolu mooy yoon parce qu'il a fait du faux léegi ñoom amuñu courage wala honnêteté wax ne Karim Wade a fait du faux quand au point de vouloir vaille que vaille saboter élection yi. Hmm. ils ont déposé leur recours. Oui. le neexee demain incha allah. donc wow. est-ce nañu wax ne le sort de la présidentielle va se jouer demain. non ça ne se pas avec xam nga aussi nit ñi nañ bàyyi seen yi nekk man dégg naa fii des gens yu manipulé visé mooy les sept sages par des par une plainte ou waaye dégg naa leen fii am na ñu toog fii ñu fi jaar fii ne waaye élection bi ba du am kii nii xawma lan lan bon on a di way off naa convoqué na nangam ak nangam bon mais tout ça yëpp c'est de la manipulation ak jibi <laughs> ñenn ñi c'est-à-dire dañu bëgg a préparer opinion bi wax le benn dugal seen bopp yi dara au point que les gens là se découragent man leen xam nga boo xamee yoon ni muy doxee y a information yoo xam su génnee dangay xam ne wérut da ngay xam ne wérul man premier jour ma gisee information bu circulé ñu ne OFNAC dafa convoqué les deux juges là mhm. ma ne kon xam ngeen yéen xam leen kon sax les juges du conseil constitutionnel ñan ñoo leen war a déglu mhm. ñu ne warul ñu ne la la cour suprême s'est réunie d'urgence man leen mais suñu si la cour suprême s'est réunie d'urgence kon yéen aussi xam ne aussi comment ça fonctionne la la cour suprême bien sûr en se fondant sur la loi organique dafa loo xamante ni nit ñi loolu lañu war a bàyyi. Mhm. gis nga euh, waa PDS yi. Mhm. li ñuy def nii ñoom xam nañ duñ ci jële ndam. Mhm. dama la ci jokkil rek ñaar ji bu ci njëkk mooy. en 2016 bi ñuy de organiser référendum bi. waa Pastef yi ñoom Ousmane Sonko ñii tey. ñoom dañu defoon ay recours au niveau de la Cour suprême. pour wax ne d'abord. attaquer décret bi convoqué le corps électoral pour référendum bi attaquer en même temps la fixation de la date même du référendum. Mhm. ba pare attaque encore la loi même euh, euh, comment dirais-je référendaire. Mhm. mais conseil constitutionnel du moins cour suprême biñ leen di répondre arrêt bi ñuy jël tëgg le 17 mars 2016. day mhm. wax ça a été clair dañu ne la fixation de la date d'une élection. et en même temps la convocation du corps électoral mhm. loolu ce sont des pouvoirs constitutionnels mhm. du président de la république mhm. yaa may dégg pouvoir de la du euh, du euh, du président de la république en cela yooyu c'est des actes de gouvernement or les actes de gouvernement sont injusticiables mooy c'est-à-dire dafay bénéficier wu d'une immunité juridictionnelle mooy kenn mënu ko attaquer parce que c'est des pouvoirs constitutionnels cour suprême pouvoir constitutionnel mooy loo xam ne ni peuple moo la ko jox léeg peuple bi jox kooku cour suprême mënu ko dindi. kon cour suprême mënul en aucun cas. mënu ko non mënu ko xool loo xam ne la xool. kon kon fan lañ teg ñoom le fait ñuy dem ci cour suprême teguñu ko fenn xamul la xam la teguñu ko fenn baru d'honneur la loolu baru d'honneur la rek sànni li ñuy wax sa ni tàccu moom la ñuy def parce que ñoom ils veulent y aller jusqu'au bout rek lëndëmal xel yi et cetera jeexi jaaxa mais jibi soo xoolee même affaire ni mu évolué ces dernière quarante huit heures yow xam nga ne président de la république mook Amadou Ba suñ demee ba ñu def seen secrétaire exécutif national président bi wax ne takku leen ngeen dem ngeen jàppale Amadou Ba encore une fois dans le conseil des ministres boobu ba léegi conseil des ministres doo ci dégg sax ñu wax ci affaire élection conseil de ministres bu démb bi da ngay dégg président bi li mu wax daan ne prenez toutes les dispositions pour une organisation de l' élection présidentielle. cest à que ñoom seen bopp sax waa pouvoir bi ils sont convaincus ñoom xam nañ ne recours PDS bi du dem fenn. PDS ñoo la gën a xam ne seen recours du dem fenn. Ah donc jurisprudence mais ñoom gëm nañ ko de. non mën gëmuñu ko il n'y croit pas. wala dañuy ko. et deuxièmement xam nga bi ma njëkkoon wax boobu c' était par rapport à la jurisprudence du 17 mars 2016. Mhm. mais deuxième bi mooy est ce que le PDS a intérêt à agir ci dans ci pour le cas présent. ils n'ont pas qualité ils n'ont pas intérêt à agir loolu mooy lan c'est-à-dire ñoom li nga xamante ne moom la ñu wax ne nañ changer date bi c'est-à-dire nañ toxalaat date bi. Mm-hmm. waaw mais ñoom ban intérêt ñoom lañ ci am. Mm-hmm. est-ce que candidat lañ est-ce que duñu candidat xam nga ñoom duñu candidat c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que jibi yow mii sa wàllu bopp ak man mii ak keneen les autres euh, sénégalais yi nga xam ne kenn newu ci candidat. Mm-hmm. ñun ñëpp tey suñu neexoon kon ñu def suñu recours. formuler ko yóbbu ko cour suprême. Mhm. daal dañuy attaquer décret président de la république. Mhm. parce que nous sommes simplement électeurs ah. ñoom Karim Wade ñoo koy yóbbu ak gàngoor googu yëpp c' est des simples électeurs ils ne sont pas c' est à dire bokkuñu sur la liste officielle des candidats donc ñoom ils n'ont pas intérêt à agir. parce que su fekkente ne loo xamante ne nii ñoom amuñ ci intéret bu doon tey benn candidat moo toog ñuy fixer date bi mu ne noonu nañu respecter la loi électorale. kooku am na ci intérêt mais kii amu ci intérêt kii électeur kese la. te xam nga affaire bi c'est pas pour le report am du loolu de ñoom visé wuñ loolu ñoom xam lu ñuy visé. mooy suñ ko reporté dañuy tëggaat mbir mi. ñoom ñu bokk bu ko fexee léegi ñoom ñu bokk. or xam nga lu muy indi. lan lay indi mooy tey conseil euh, cour suprême bu ko defoon mooy con euh, remettre na en cause la décision même du conseil constitutionnel bi nga xam ne moo fixé la liste de dix-neuf Mm-hmm. or la loi organique est comme ak ni ko euh, cour euh, kii waxee constitution bi article 92 les décisions du conseil constitutionnel sont insusceptibles de de recours donc comme que nag ñoom xam nañ ne les décisions du conseil conseil kenn mënu ko attaquer. naan tout est authentique. Oh. et ça va aboutir. waaw mais mais ji bi beaucoup de. mais ji bi mënuñu wax leneen. non non mais ji bi mënuñu wax leneen xamul tax. Mm-hmm. mënuñu wax leneen. cest à ñoom dañu dugal seen i dëkk seen i seen recours en annulation waaw mënuñu wax leneen c'est-à-dire xool ils vont donner de fausses garanties xam la kii daal di ne non dina jàll du nangam na waaw waaw mais wala aidé en cela aussi par certains journalistes aussi, euh, aussi par certains chroniqueurs loolu aussi il faut qu'on le dise waaye c'est vrai parce que moi je vois des chroniqueurs qui défilent et qui voient dans ce sens-là sans pour autant même évoquer même benn règle de droit j'ai vu des chroniqueurs qui défilent en disant non du am et cetera des journalistes qui soutiennent ça. waaw si Cissé nee na moom jort na ne du am. waaw mais xam nga Mansour la aussi je suis pas avec lui parce que je l'ai vu. waaw c'est-à-dire ba nga koy wax cest da nga ko da nga waroon indi